أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وضائيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi bismillahi tabaraka wa taala ci waxtu wi ñoo ngi fas yéene dugg tey ci fatxu makka mooy ubbi bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla xéewal na ko jàppale ko ci kàttanam ak ndimbalam ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di ubbi màkka màkka gi nga xam ne ñoo génne woon yonent màkka gi nga xam ne fa la yonent juddoo fa la yonent dafee ndawam yépp fa la ko yàlla yónnee màkka boobu nga xam ne keroog biñ koy génne moom yonent alayhi salaatu wasalaam fekk na xolam jeex na gënalu ko waaye ndimbalal yàlla moo ñëw ndogalal yàlla moo ñëw mu war a génn màkka jëm Medine bismillah sunu darsu tey ñoo ngi jàng kayfa hayya allahu al asbaab li fatxi makka kayfa hayya allahu al asbaab li fatxi makk naka la yàlla subhaanahu wa taala waajalalee yonent bi sabab ba yonent bi am la mu bëgg mooy mu ubbi ji màkk loolu bokk na ci li ñuy jàng mooy yàlla subhaanahu wa taala waajal gi mu waajal yonent bi ci ay sabab ba yonent bi am la mu bëggoon mooy ubbi ji màkk ñaareel mooy mashaa'iruhu tijaaha afwa nabiyi sallallahu alayhi wa sallam an mushriki màkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu duggee màkk ci xéewal yi ko yàlla subhaanahu wa taala defal mooy ndeysaan mu jéggal moom yonent bokkaalekat yi nga xam ne ñoo ko doon tooñ ñoo ko doon lor ñoo ko komplo woon ñoo ko bëggoon rey ba génne ko makkatal mukarram moom yonent keroog ba ko yàlla dimbalee ci kàttanam ak ndogalam mu dellu makk moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam naka la def ba jéggal leen loolu dinañ ko jàng bismillahi tabaraka wa taala dinañ jàng encore mbokk yi al mustafaada min altasarrufi nnabiyi sala allahu alayhi wa sallam ma jamaa min man azamat zunubahum wa aazu lislaama wa ahlihi azima al aza danañ jàng ay leçon yoo xam ne war nañ ko tiire war nañ ko jële ci yonent alayhi salaatu wasalaam na mu jëfandikoo ak mbooloo yi nga xam ne seeni bàkkaar rëy na loroon nañ islaam lor waa islaam lor yu rëy rëy rëy rëy ñu mel ne ñoom Abu Sufyaan ñu mel ne ñeneen ñu mel ni moom keroog ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam duggee makkatal mukarram gaa yooyu nga xam ne loroon nañ ko moom yonent mbooloo yu nga xam ne lor nañu lislaam ak waa lislaam keroog ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam duggee màkk naka la jëfandikoo ak ñoom loolu tamit bokk na ci li ñuy jàng ci leçon yi nekk sunu kanam waaye mbokk yi ba tey bokk na ci jaayante gi nga xam ne jigéen ñi jaayante woon nañ ko ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu tamit bokk na ci li ñuy jàng naka la jaayante gi deme woon naka la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaayante woon ak jigéen ñooñu loolu tamit bi isnillah bokk na ci li ñuy jàng ci dars bii di fatfu mag waaye mbokk yi bokk na ci kayfa tamma hadmul asnaam fil kaaba wa xaarijiha allahu akbar bokk na ci li ñuy jàng li gën a rëy mooy keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duggee màkk ñu ubbil ko kaaba gi muy daaneel xërëm ya nekkoon ci biir kaaba ga ak ya wëroon kaaba gi nga xam ne xërëm yi tolloon nañ ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca biir kaaba ga ak biti kaaba gi mu daaneel xërëm yépp la ko wëroon setal néegu yàlla bi ba mu set wecc loolu tamit doomu ndey mbokk jullit yi bi iznillahi tabaraka wa taala bokk na ci li ñuy jàng gazwatu fath al azam xew-xew la boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala saa yu nammee mbir hayya a asbaaba sunu borom subhaanahu wa taala saa yu nammee def mbir rek da koy préparel ay sabab daa di koy dindil ay gàllankoor ba mbir moomu dara du ko gàllankoor moom yàlla loolu moom mooy mbiram loolu mooy namm téefam loolu mooy coobareem moom yàlla su bëggee def mbir kenn mënul fexe ba mbir moomu yàlla bëgg subhaanahu wa taala du am lu ko waral mooy innama amruhu ida araada shay'an an yaqulu lahu kun fa yakun yàlla su nammee dara rek ci kàttam ak kàttanam ak bëgg-bëggam ak dogalam bu ne ko kun day nekk moo tax mboolem sabab yi nga xam ne ak mawaani gàllankoor yi nga xam ne day gàllankoor loolu ak sabab yi borom bi subhaanahu wa taala daf ko fay dégager daf ko fay dindi faqad kaana alayhi salaatu wassalaam yaalamu annahu laa tazullu al arab xata tazillu quraysh yonente alayhi salaatu wassalaam xam na giir gii di arab famille bii di arab xeet wii di arab yàlla du leen toroxal mukk lu dul mu toroxal waa quraysh ndax quraysh ñoom ñoo giir gi gën a rëy ci giirug arab yàlla tabaraka wa taala du muccal réew lu dul mu muccal màkk ndax màkk mooy ngën gi dëkk looloo tax fa kaana yatashawaqu li fatxiha moom yonent alayhi salaatu wasalaam guddeeg bëccëg ay pexeem ak ay xalaatam mooy naka la ma yàlla di dimbale ba dëkk bi di màkk ma dem ubbi ji ko loolu nekk ci xelam nekk ci xolam muy fanaanoog moom di yeewandoog moom mu nekk projet bu mu denc ci dënnam moom yonent bi ndax bëgg-bëggam la kañ la ma yàlla di dimbali nii ma nangoo màkk occupé ko Medine kañ la ma yàlla di dimbali tabaraka wa taala ba màkk tamit jot wàllam nekk réewum lislaam génn ci réewum bokkaale ak réewum xërëm walakin kaana yamnauhu min zalik al uhud allati aataaha qurayshan fi lxudaybiya waaye nag yonent li mu koy bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg am na ay mbir yoo xam ne tere na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci ubbi ji màkka fal force ndax kat moom mooy ku maandu ki moom yonent bi mooy ku baax ki moom yonent bi mooy koo xam ne lu mu wax rek daf koy def te yàlla dogaloon na siñante woon na ak Quraysh benn pacte ca barab bu ñuy wax Hudaybiya waxoon nañ leen dars bi passé Hudaybiya fu mu nekk dànd Makka ci ñaata kilomètre loolu yàlla def na waxoon nañ ko mbokk jullit yi bi loolu amee yonente alayhi salaatu wasalaam signé woon na ak waa Makka benn pacte boo xam ne ca Hudaybiya duñu xeex kenn ci ñun du dimbali moroomam muy xeex ak keneen ki te xam ngeen yonent bi wa huwa sayyidu man wafa képp kuy respecté dara yonent bi moo la ko gën a mën a respecté walakin iza arada allahu amran hayya asbaab waaye nag yàlla ba mu nammee pacte boobu mu siñante woon ak Quraysh arab yooyu kenn du xeex ak yéen du ngeen dimbali kuy xeex ak ñun ñun tamit duñu dimbali kuy xeex ak yéen yàlla ba mu nammee loolu dañ borom bi tabaraka wa taala utal na ko ay sabab ba loolu yàlla namoon daal di dajjeeku daal di tegu fële ca wàll wa faqad alimta anna qabilata khuzaa dakhalat fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa qabilatu bakrin mu ne xam ngeen ne am na ñaari xeet ca madinatul munawar ay yahud lañ woon ñii ñu ngi tudd xuzaa ñeneen ñaa ngi tudd bakr ñii ànd nañu ak yonent ñeneen ñi ànd ak quraysh waaye nag daxalaat fi ahdi quraysh mooy waa bakr ñoom ñooy qabilatu bakr daxalaat fi ahdi quraysh waa xeet wu ñuy wax bakr ñoom dañoo dem tànn waa quraysh ànd ak ñoom xuzaa moom diggante ñaari xeet yooyu xam ngeen ne dañoo yàgg a xeex avant l'islam du ñëw xeexu keddo xeexu jaahiliya dañuy jekki-jekki rek ku nekk daal di tagg say maam surtout bu ñu dajee ci yenn barab yi daje ca marché xasante ku nekk wax say maam lañ defoon maam yi ñeneen ñi bu ñu dajee ca teen ya bu ñu dajee ca dex ya bu ñu dajee ca pénc ya ku nekk daal di tagg say maam njàmbaareem daal di daaneel maam yi jàmbur ñooñu tamit lànk tagg seeni maam noonu la ñuy def ñaari xeet yooyu moo tax fu ñu daje rek rayante benn bis daje nañ ñoom ñaari xeet yooyu ku nekk tagg sa maam safara bi daal di dekkiwaat ah ñenn ñi daal dem ca waa Quraysh daal leen di jàmbatu jooy leen waa Quraysh daal leen di dimbali ñu daal di attaqué beneen famille ba daat ci rey ay nit famille ba ñu attaqué woon nag mooy ba àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy xasaa ba loolu amee ah ñoom dem ñu daal di ñëw daal di jooytu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ñun kat yow lañu àndaloon Quraysh ñëw na dimbali sunuy noon sunu kaw ñu daal di lu sunu kaw ba daal di rey ci ay nit léegi nag yow it yow yow yaay koo xam ne ñun yow la ñu àndaloon te léegi tey nag tooñ nañ ñu néewal ñu doole ba rey ci ci ñun ay nit lu tolloog ñaar fukki nit rey nañ leen keroog ba loolu amee ndeysaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne moom moo siñante woon ak ñi ne leen yéen man ngeen àndal ku xeex ak yéen man la man la xeexal ku xeex ak man tamit yéen la xeexal kon nag comme yéen tooñ nañ leen man maa jëloon sama pacte sama accord ak yéen ne ku leen tooñ ma dimbali leen ba loolu amee yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di takk xare ah mbir daal di xew lu xew mooy ñooñu bañ ñee wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne leen dinaa leen dimbali lu xew mooy waa Quraysh ba ñu yëgee mbir ma ñu daal di gaaw dawtu ca suuf daal di jël ku tudd Abu Sufyaan daal di koy yónni ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam pour yonent bi ñëw pour Abu Sufyaan ñëw jàmmoog yonent ñu daal di négocier mbir mi même bu fekkente ne dañuy joxe alal ñoom ñi nga xam ne ñoo tooñ ñu daal di dàmp ñañu tooñ ñañu rey ñu joxe diya ñu daal di yónni Abu Sufyaan Abu Sufyaan daal di déparé mag jëm Madinatul Munawwar ba mu yëgsee Médine moom Abu Sufyaan ibnu Harb amul lenn lu mu def lul jubal kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam ngeen waa jooju di Abu Sufyaan suñu waxee turam ku nekk war naa xam mooy kan ndax kat goro la ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moo dencoon doomam bu ñuy wax Habiba umu Habiba mu ngoog ah umul muminin umu Habiba bintu Abi Sufyaan ba yàlla defee loolu mu daal di départ rek ñëw daal di dugg ca kër yonent bi départ utali néegu doomam a dugg rek wa araada an yajlisa ala firaasi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jubal rek départ ne day toog ci lalu yonent bi doom ji ne ko jool looy def ni mu ne ko ah du ma sa bàyyi mu ne ko bokkaalekat bu bon bi yéeféer bi dinaa la bàyyi yow sobe bi ngay toog ci lalu sang bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yow daal ba nga ma bañee ba tey mbañe mbañeel googu moo continué mu ne ko déedéet anta mushrik najas yow bokkaale kan nga sobe nga duma la bàyyi mukk ngay toog ci lalu ku sell ki muy yonent bi mu daal di génn moom Abu Sufyaan ak meram mu daal di départ fekk yonent bi ca jàkka ja ndeysaan suma xaraja min indiha wa ata nabi sallallahu alayhi wa sallam fi l masjid wa arada wa arada alayhi ma jaalahu mu daal di koy wax li tax mu ñëw te ko man kat samay mbokk ma yónni nga négocier ak yow ndax kat yàlla def na ab xeex am na boo xam ne ah teyef indiwu ko lépp daal lu mu xam ci négocier ci gàntal ba xeex du am moom Abu Sufyaan jéem na ko indi fa qaala lahu alayhi salaatu wasalaam hal kaana min xadas ndax dafa am lu xew moo ko gën a xam fa qaala laa fa qaala alayhi salaatu wasalaam fa naxnu ala muddatina wa sulxina wa lam nazid ala zalika man de maa ngi lay yëgal ne la ma waxoon ak yéen ci laa ne yéen dama ne woon leen du ngeen xeex ak man du ngeen dimbali ku xeex ak man waaye ñi far ak man it du ngeen xoox ak ñoom du ngeen dimbali ku xeex ak ñoom waaye yéen waa Quraysh yàlla def na ànd ngeen ak beneen xeet wi dem tooñ beneen xeet bi ba rey ci ñoom ñaar fukk kon nag la ma waxoon maa ngi ci. et puis pacte ba ma signante woon ak yéen jeex na dootuma ko dolli ah Abu Sufyaan daal di tiit itam daal di rëcc. xam na ne kii mooy Muhammad xam na ne kii mooy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu dogu dina ko def lépp lu mu wax dina ko def ndax moom mooy ku maandu ki Abu Sufyaan daal di départ fa qaama Abu Sufyaan wa masa ila akaabiri lmuhaajirin min Quraysh mu dem départ ndeysaan jëm ci sangi Quraysh ya nga xam ne ñoo gàddaayoon ànd ak yonent bi di ay jullit ku mel ne Abu Umar ku mel ne Abu Bakr ku mel ne Usmaan sang yooyu moom Abu Sufyaan départ na jëm ca ñoom di leen wër kenn par kenn pour kat ñu ànd ak moom ñëw négocier yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu mu xeex ak ñoom pour lan yusaayidunahu ala maqsadihi pour ñu dimbali ko ci jubluwaayam bi nga xam ne moom moom la jublu mooy leen jàmm ko tax a jóg na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàppale ba ñañu rey ñu joxe ndàmpaay rek ñu daal di delloowaat defaraat accords yi ñu bañ a xool deret ji tuuru waaye saxaaba yooyu ñoom xam ngeen ne ñoom it yonent bi moo leen yaroon sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi ba mu leen yaree lu yonent bi def rek ñoom ànd nañ ci ndax xam nañ ne kii du def ci ay bànneexu bakkanam kii du demee xelam kii du demee xalaatam lu mu def rek yàlla subhaanahu wa taala moo ko def loo ndax loolu yàllaa ko wax ci alquran yonent lu mu leen indil jël leen lu mu leen bàyyiloo bàyyi leen moom yonent bi maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuha du wax lu ko neex mukk lépp lu mu def rek wax yu la bu bàyyeekoo ci allahu subhaanahu wa taala loolu moo tax ñooñu ba ñu xamee loolu it falam yajid minhum muinan ñoom ñépp kenn ku nekk ñoom dangaa lànk amul kenn ci ñoom koo xam ne dimbali na ko ci bëgg-bëggam boobu ndeysaan wa kulluhum qaalu jawaaruna fi jawaari rasulillah jiwaaruna fi jiwaari rasulillah ñun dey sunu dëgg sunu wàll sunu far ñoo ngi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lu mu wax loolu lañ wax lu mu jàpp loolu lañ jàpp lu mu bàyyi moom lañ bàyyi faraja ila qawmi ndeysaan mu daal di dellu ci ay mbokkam ci ay loxoy neen ay loxo yu vide walam yasna say an amul lenn lu mu lu mu fa jële amul lenn lu mu fa def mu daal di dellu ndeysaan ñu daal di koy tuumaal moom Abu Sufyaan sax ne ko yow daal yaa ñi war waaw yow yaa ñi war fattahamuhu bi annahu xaanahum mu ne ko yow mi yaa ñi war ndax yow yaa dem dugg ci lislaam ndax xam ngeen ne ba mu ñëwee ndeysaan di ut négociation boobu pour lan du xeex ak yonent bi waa Màkka duñu xeex ak waa Medina jullit yi duñu xeex ak yéeféer yi ya dëkkoon mag mooy Abbas da ko faa waar ak Bilal ndeysaan ba Abbas sax jóg poñe ko fëgg dënn bi ne ko yow Abu Sufyaan yow ba léegi gëmagoo ne yonent bi yàllaa ko yónni ndeysaan yaramam daal di daw mu ne yonent bokk moo tax sax gaa yi lenn saa yi ba léegi di ko di di ko diingat ci islaamam boobu mu waxoon kooku ne ko ah islaam bokk ngay wax fëggaat dënn bi ne ko yow lu tax doo wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah ndeysaan mu xam ne làqatu jeex na coono jeex na moom Abu Sufyaan foofu la tuub daal di nangu diine waaye nag ndeysaan ba mu delloo màkk amaaka ne ko jaru nga fi wax parce que trahir nga ñu dang ñoo wor dan laa yónni woon nga dem amoo lan loo def lu topp yonent yàlla Muhammad wattaba al islaam topp nga lislaam kon tey doo fi wax kopp nag dafa bëggoon nguur yonent alayhi salaatu wasalaam ba Abu Sufyaan tuubee mu ne ko boo demee nga ne waa Màkka maa ngi ñëw waaye dinaa xeex ak ñëpp ba mu des ku dugg sa kër yow ku dugg sa kër làqatu yow Abu Sufyaan du ma ko laal waaye képp koo xam ne dugg na ci kaaba gi du ma ko laal képp ku dugg këram tëj buntu këram ci biir toog du ma ko laal waaye lu dul loolu ku taxawaale ci mbedd mi wala nga ne dag ñuy song su ma la fa fekkee àllaaxira laa la jëmale ndeysaan looloo tax Abu Sufyaan bi mu delloo màkk bëgg a joxe information yi waa màkka daa di lànk ne ko yow dun la déglu ndax ñëw dang ñoo wor kon yéen mbokk jullit yi suñu bëggee xam waa ji waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam réparation am ñaata góor la àndaloon mbooloo mi ñaata généraux la ñaata xaaj la leen def yan arme lañ yoroon ban yoon lañ jaar yan pexe la yonent bi tëral pour ubbi màkk nan la waa Quraysh déggee loolu Abu Sufyaan nan la def ci ñu duggoon këram ak ñi duggoon seeni biir kër ak ña taxawoon ci kaaba ga bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam eggee kaaba ga ñamu àndaloon lan la fa bilaal def incha allah ci dars yi nekk sunu kanam bismillahi tabaraka wa taala des na ci ñëw ñu ngi ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp jéggal ñu njuumte yi li ci jub ci yàlla la bàyyeekoo li ci manqué ci ñun la assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu